donc boo jëlee activiste. Mhm. grand yi yàgg nañoo nekk ci activisme amaana sax te xamuñu ne woon ñoom ils font de l' activisme. parce que l' activisme c' est mhm. parce que c' est pour le bien-être. c' est mhm. dénoncer les conditions yi nga xamante ne nii teguwul ci yoon pour le bien-être de la société. comme ni ngeen ko waxee. on s'active par rapport à son milieu on s'active par rapport à des situations que vivent d'autres qui sont vraiment dans des calvaires yoo nga xamante ni du dëgg du yoon Donc l'activisme n'est rien d'autre qu'un engagement sur le côté positif pour le changement positif des choses. Mm C'est ça l'activisme. Ce qui veut dire qu'à la base, le hip-hop, surtout le rap sénégalais, c'est des activistes. Mm C'est des activistes de naissance. Mhm. boo xoolee Pifras. c'est des activistes. nga jël kenn ku mel ni Positive Black Soul avec DJ grand DJ. Didier qui est très engagé pour le Sénégal pour l'Afrique ñooñu c'est des activistes boo jëlee ku mel ni Daddy Bibson par exemple c'est quelqu'un boo xamante ne nii bon tout son message day œuvrer pour le développement de son de son de son milieu de sa communauté mm. et par contre le militant le militantisme bon c'est un choix hein mm-hmm. c'est un choix man par exemple euh, je vais prendre mon mon exemple mon cas en c'est vrai que lorsque je chantais góor gi na dem na dem a dem a dem góor gi dee na suul nañ ko c'était des raisons yoo xamante ni c'était pour le changement mais n'empêche que j'ai accompagné le président de la République une fois au pouvoir mais nguuruwuma parce que nguuru mooy koo xamante ne am nga post et si vous vous souvenez bien yaa ngi fàttaliku le premier truc que j'ai fait Macky bi mu ñëwee au pouvoir mooy diggee bor la <laughs> mais je suis avec lui maa ngi koy jàppale mais man sama statut de activiste mosuma ko bàyyi Macky bi ñu ko falee man maa njëkk ñëw maa ngeex moom maa ngi koy jàppale ba pare ne ku diggee bor la dafa am loo diggee woon askan bi ba ñu fal la mhm. voilà donc je l'ai accompagné bu baaxee ma encouragé quand ça ne va pas je je dis que va pas donc j'ai toujours gardé sama statut activiste bon est-ce qu'on peut parler de militantisme parce que le militant je pense qu'il est censé avoir une carte voilà non on peut accompagner la personne sans pour autant être non. un militant au sens propre du militantisme hein? je moo tax débat bi moo tax ma ni c'est intéressant moi c'est un ah. thème que j'adore quoi <laughs> <laughs>